arbitre sifflé na ci diggante internet bu écrit face benn Pape Dambay numéro 2 bu école de lutte Dambay internet moo ngi moo ngi lu xonq li Pape Dambay numéro 2 moo ngi moo ñuul moo feete suñu ndeyjoor internet moo féete suñu càmmoñ bilaay sama jigéen bi ñaari mbër yaa ngi damantey baaraam oh la la bay daam ñaari mbër yu songo nañu waaye dañoo songo ca kaw songo nañu waaye dañoo songo ca kaw oh la la bay daam doon na ko internet bañ na kaw dana am kawo dana am kawo dana am wolala oh Baye Dame internet dana ko door mu daanu internet a fayu de ah xale bi jàmbaar la wolala oh dana ko door mu daanu daf ko prolonge Pape Dame Mbaye inter internet faqat Pape Dame Mbaye koy faqat e ñi ngi internet jàmbaar la ah. internet jàmbar la ah. eh waay eh, internet pa dam billaay yàlla ko tax a wax ndeysaan te muy dëgg nag. eh waay. ndeysaan Pape Dame Mbaye internet bu Fass Benno oh là na ko daan na ko Pape bu ko dóor e boo ko dóor dóoree am problème de